mbokk yi nañu xam ne kenn ku ne ci ñun boo xoolee ña ngi istat sëñ Saliou boo xoolee ci Facebook bi nga dem ci internet bi dem ci YouTube bi mbokk yi dem ci euh, WhatsApp bi kenn ku ne yaa ngi téléchargé di wàcc sëñ Tuubaa Cheikh Saliou di ko istati ak am solo ndax inna fi zikri saalihiina tanzilu rahma boo leen di fàttaliku maana day wàcc mais mbokk yi nan la ñuy fàttali ko nitu yàlla nitu yàlla koo xam ne li ma waxan du ma denc di ko wax dafa bokk ci ñi marqué seen jamono moom sëñ Tuubaa Seex Saaliw réew yu mag yi ñoo bind réew yu mag yi ci àddina ñoo bind Sëriñ Saaliw mu ne bu ci Sénégal aman ñaar ba ñett Sénégal fi lay dexe lay doxee développé te dootul arrière mukk réew yu mag yi ñoo bind loolu wëral seen artiste ñoom ñoo ko wax ñu ni Sénégal bu bu fekkee ne am nañ ku mel ni Sëriñ Saaliw ñett nit ñaar ba ñett jëm kaw ci la Sénégal di dox soqaliku te dootul daanu dootul arrière réew yu mag yi ñoo bind loolu kon ku mel noonu war nañ ko fàttaliku waaye nañ la ko fàttaliku yow mi yow mi istat sëñ Saaliw ci sa téléphone yow mi koy wàcc ay vidéo yow mi koy téléchargé noo war a jàng ci jëmm ji tedd ji ak ñaata nga am yow mi koy def kii ngay istati mille neuf cent quinze la gane jamono quinze la gën a jamono 34 mu sanc daara allahu akbar 1915 la gën a jamono 1934 mu sanc daara ñaar fukki at ak benn jàpp ñaar fukki at ñaar fukki ñaar fukki at ak benn mu sanc daara mais yow loo taxawalagul allahu akbar mbokk yi nañu xool ñun lu ñu taxawalagul moom day 1915 la gën a jamono 1914 mu sanc daaray ngot allahu akbar mais ñun lan lañ taxawalagul yaa ngi ci fanweeri at yaa ngi ci ñaar fukki at ak juróom yaa ngi ci ñeent fukki at yaa ngi juróom fukki at taxawal a goo dara yàlla xanaa sa bopp rek dañuy waxtaan te wax dëgg te yàlla tax nit yàlla yi duñ leen fàttalikoo statut kese duñ leen fàttalikoo ay vidéo duñ leen fàttalikoo loolu dëgg la almaru maa man habba yonante bi sallallahu alayhi wa moo ko wax nit ki ki mu sopp fu mu dugg ëllëg mën na fa dugg waaye sopp gu ànd ak jëf sopp gu ànd ak jëf mooy du sopp naa nit rek kaw solo ba say loxo man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum boo bëggee bokk ci góor yàlla yi ëllëg bëgg bokk ci ñuy ràmmoo ëllëg bëgg bokk ci ñu sëñ Tuubaa di tiitaroo ëllëg da ngay jéem a nuru nuru gaar yàlla yooyu nuru nuru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuru nuru sahaaba ya nuru nuru taabiina ya nuru nuru si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul nuru nuru mag ñi toppan Sëriñ Tuubaa si Ahmad Bamba nuru nuru doomam yi nuru nuru sëtam yu baax yi jub te déggal ko ñooñu laa wax mbokk yi su ko defee su ëllëgee fu yàlla joxañe ñooñu joxañ la mais du istati kese de du suppi ay rangooñ di jooy naa sëñ bi rek déedéet dañ koy boole ak jëf man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum sëñ Tuubaa Seex Saalu ñaari fukki at ak benn ma taxawal daara yow loo taxawalagul allahu akbar mbokk yi addiya ji njëkk a teg ci loxo moom sëñ Tuubaa Seex Saaliw toll ci fas ma naan fas naar góor da koo yëg sëñ Mourou Moustapha sëñ Mourou Moustapha di xool fas di ko xool di ko xool ba yàgg mag ñi jaaxle mu ne xalaat di ngeen damaa bëgg aw fas de mag ñi moom lañ yaakaaroon de mu ne ko déedéet saalihu mi andi fii nii damaa xam ne addiya ji nii ma ngi doo ko tegu ci loxoom mu am yéenay jox ma ko ngi jëm Sëriñ Tuubaa mi sëq looloo ma jaaxal ndaru fas yi laa bëgg mbokk yi foofu la mag ñi nekkoon mbokk yi nit da ngay jéem a def dara effort waaye bul ni rek sama maam lii sama baay lii nangam dama ko faral di wax tilka ummatun qad sahabat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran ko wax du sama wax jàll bu leen tiitaroo sëriñ sa ñoom ak seen jëf yéen ak seen jëf képp ku jaaru fa ñu jaaral ak koo mën a doon yàlla di rëq sa ak koo mën a doon laax nag duñ tiitaroo ay baay bu tiitaroo ay maam yonent bi sallallahu dafa am bis daal di woo Abbas ak ku ci mel ni Fatima ak giiru bani Abdu Manaaf daal leen yaa bani Abdu Manaaf yaa bani Abdul Manaaf istaru anfusakum minal janna laa yuxni ankum minallaahi say yéen waa bani Abdul Manaaf laa wax fexe leen ba jëndal seen bopp àjjana ëllëg mënalu ma leen dara yemal xel akbar yonent bay wax de te moom la Sëñ Tuubaa doon liggéeyal <laughs> allahu akbar daa liggéey kam a Abbas ni ko Abbas doom bàyyi ta xam na de istari nafsaka bil janna laa ughni anka mina lay sayan jënd na sa bopp àjjana mënu ma laa dugal àjjana ëllëg kat yow Abbas sa jëf rek moo mën dugal daal yëpp Safiya bàjjanam ni ko yow Safiya sama bàjjan bi ma bëgg lool sax jëndalal sa bopp àjjana ëllëg mënuma laa dugal àjjana li nga jëf rek dafa ma dugal daal di gees yam ci Fatimatu bintu Muhammadin daal di ko yaa Fatimatu bintu Sahara nisan zalini min maali maa si'ti sama alal a ngi loo bëgg jëlal ndax maay sa baay waaye nag laa uxni anki min allahi shay'a ëllëg yowmal qiyaamati akbar mën a lu ma fa dara loolu loo jëfal sa bopp mbokk yi tee ñoo jëfal suñu bopp lu baax te ñoo nam nabi ci sunu ci guddi ak bëccëg yi te ñoo xool lu ñu may dëgg ëllëg ak lu ñu may ndab ëllëg moo gën de fa xalafa min baadi xalfun adaau salaata wattabaw sahawaat fa sawfa yalxaw na xayyaa gënuma leen koo xam sunu boroom mbaa du ngeen bokk ci ñi xam ne ni wuutu seen bàyyi ak seen maam ya rek caaxaane julli caaxaane koor caaxaara yu baax yépp di tiitaroo ay maam ak di ko damoo mu ni ñuy def loolu alquran nee na fa sawfa yalqaana xayya fa sawfa bu ko firee mukk xay na déedéet mukk da ngeen lay wax fa sawfa da ngeen lay firi force ngeen mos xur sawara yu ñuy wax xay te xay ci xuri sawara yi la bokk wax na ni sawara sax li muy tàng-tàng day muslu xur woowu ñuy wax xay mbokk yi nit yàlla yi buñ leen di fàttaliku nit yàlla yi buñ leen di ko ci bis yu mel nii nañu xool liñ jëfam lan la waxam sëñ Saliou Touré moom sëñ Saliou Mbacké mi yàlla na ko yàlla fayal da ko waxaat ni juróom ñeen fukk ak ñaar dund naa ko soo bis yëpp dox naa ko borom juróom-ñeent fukk ak ñaar dund naa ko soo bis yëpp dox suñu borom kara ba bi muy wàcc liggéey course daal ñu dindi ci loxo bi dafa julli suba ba sëlmal doog wàcc liggéey <laughs> donc heure bu neex ngay jullee bu neex ngay doxal ci àddina jabari jàmbur ci doon neex nga sëq ak moom jigéen ju la neex nga sëq ak moom ku la neex nga sëq ak moom tani nag yaakaar naa seexul xadim ak koo mën a doon laa wax nag boo koy sëriñ Tuubaa jëf la dañ koy dund ci xol gëm ko ci xol jëfandikoo ak moom am na kenn ci doomi seex yi koo xam ne bi waajuram wàcce léegi mag ñi dem koo defar solal ko yére waajal ko ñëw taxaw ko ci kanam sëriñ Tuubaa sëñ bi ni ko jàkk di ko xool lu yàgg bàyyi mu ko diw mu wuyu ko mu ni ko demal jaamu ji yàlla tabaay sa fam jaamu ji yàlla jaamu ji yàlla tabaay fa mii allahu akbar yu bari fan koy fooge mbokk yi ak fam nekk bokkul mbokk yi nañu xam ne dëgg rek kay dëgg alxaqu min rabbikum dëgg ci yàlla la bàyyi ko fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur kum neex gëmal kum neex weddit waaye looloy dëgg murit boo fi doo murit mu la léegi te sëriñ Saaliw wala Cheikh Mourtala bu mu saa génn ba nit ñi topp ko di ko ñaan yàlla nga gudd fan yàlla nga dund junni ak xam nga murid loolu xër ndeysaan dadi naa yi ni ngi neaka àddina dafa neex ñoom àddina dañ fay nekkan damay faral di wax dafa nekkan ci àddina mais nag ba pare bëggul àddina ñu ni ko limaale ci waa àddina te bokkul ci waa àddina yu sew la yoo xam ne du neex a leeral fii jëriñ jullit yi ñoo leen yëkkati woon seen bàyyi leen donn seen maam leen donn lépp ñu teg ko siraatal mustaqim mais yii may gis jamono ju nëtax ji jamono ju lëndëm ji jamono ji nga xam ne kenn xamul foo jëm lu la neex def te yaakaar sëñ bi koo mën a sant ak koo mën a doon boo jëru ci dëgg dañ laa war a ne duut baaraam ne ci dëgg ñu jaar ci yoon siraat ndax sëñ Tuubaa foofu la nekkoon de foofu la mag ñi nekkoon de lu la waaye man a wax foofu la mag ñi nekkoon yawma laa yuxni mawlan an mawlan say a alquran la de te lu waaye mën di gëm alxuraan nga war a gën a gëm ba pare doo ko def loolu suñu borom nee na bis ba nga xam ni kilifa mënu faa jëriñ kenn kilifa loolu nag taxul ma dàq ràmm de ndax alxuraan andi na ràmm Sëriñ Tuubaa day nit yàlla yi dañuy ràmm Sëriñ Saaliw day ràmmo Seex Murtala day ràmmo Seex Isaa Jeen day ràmmo Maam Seex Ibra Faal day ràmmo nit yàlla yëpp dañuy ràmmoo ëllëg insha allahu rabbi waaye ñooñu dañoo toppoon Seexu Xadim te dëggal nekk ci li moo tax ëllëg dañ koy ràmm yow nekkoo ci li neex yàlla ko ci li neex sëñ bi sa bopp rek nekk mais ñun lan la defal yàlla laa yor kenn ku ne yaa ngi xëccoo tabax kër gu rafet yaa ngi xëccoo dàqale sa morom kër yaa ngi xëccoo ay alal yaa ngi xëccoo ay bee yaa ngi xëccoo xëccoo oto bu rafet ah taxawaloo yàlla dara loo taxawale yàlla kon ñun bu xëyee nekk suñu bopp la nekk waaye nekkul ci yàlla looy jëkkante ay kër yu rafet oto yu rafet ay jongama yu rafet nangam ak nangam li a na doon li na doon si li ñu war a xëccoo mu war a doon suñu cër mu war doon li ñu bëgg te gëm ko mooy xëccoo yàlla sëñ Saaliw maa ngi dégg léegi ay waxam léegi nii mu wax ni doomu aadama bu nekk yàlla boole ko ñaari biir biiru boppam bi ak biiru jëmmam bi biiru bi ak biiru boppam bi sa biiru bii nga xam yàlla la boole moom nee na bul bu mu tëyte yàlla mi la sàkk force mu jox la looy looy dépassoo wallaahi lasim mun waaye nag sa biir baa mel koy sa biir baa mel mu ne nay sëyte wax jooju ne nit ñi dañ koy dégg te du ko bàyyi xel lu ci sëñ Saliou teg loo fa jëf loo ko fekk ah yow nga ni sëñ Saliou man moo may ram <laughs> bañ a la jëf lu baax rek nit yàlla yi kañ ram mooy ku jëf ndeysaan jëf nga waaye nag mënoo leen a daf bu ëllëg yëmal xiyaam suñu borom dañuy di rus ñoom ñu mën a ram mooy ñi nga xam ne doon nañ jëf kët waaye nag amuñu mat sa bay àgg fi ñuy àgg ba yàlla naral di tabar sawra ñu ràmb leen mais nekk ci caaxaan ak caay-caay ak lu la neex ni yàlla damay ram sëñ bi damay ram ku koy def yaa ngi wax loo xam sëñ Tuubaa bi ko fenn xas yi ku gis ko sëñ bi bind rek nga andi ma ko sëñ dañ koy dund ci xol dañ koy gëm di jihaat ci moom mu jaral la jaay sa bakkan xam-xam bu leer nañ ci gëm ko gu wér cëng mbokk yi bu ñu nax suñu bopp bu ñu nax suñu bopp bu ñu nax suñu bopp mag ñi foofu lañ nekkoon de mag ñi foofu lañ nekkoon sëñ Saaliw dégg ngeen ni wax sa biir bopp ak sa biir bàmmeel sa biir bàmmeel loo fa jëfandoo fa fekk daal di wax ni àdduna bi itam ah wan nañu ginnaaw àdduna ah, ah, ma ngay dem dëgmal kuy daaw du ko jot daan àllaaxiraatam dëgmal nañu kenn mënu koo raw dégg mu ne kon sunu borom loo ko dëgmal mu gën laa wut si àdduna loo ko wuti mu gën laa daw <laughs> wallaahu waaw doo wuti suñu borom duñ wuti suñu borom sax laa yor benn xisa laay tëje ku wax sëñ ma ñaaw si la incha allahu rabi ci mag bokkan ndax dañ maa ñor ñoom mag ñi day sànn dañoo liggéeyal lislaam liggéeyal seexul xadiim sëñ ma ñaaw si la nee lu ko tax a bàyyi nelaw guddi moom sëñ ma ñaaw nee benn bis dafa def ay lawraatam jàng alquran def ay naafilaam ak i lawraatam ba yaakaar ni tëdd ci des guddi na loolu moom mu war a tëdd nee na benn sàmm benn sàmm boo xam ni sëñ ma ñaaw nee na da koo gis moom sàmm bi mu bari ak jur loolu yoroon na ñetti téeméeri nag mbir ñi daa wëgg ci bëccëg gi mënta wëgg ndax nag yu bari sëñ ma ñaan su laay nettali nag ndax nag yu bari danaa bàyyi ba nit ñi wëgg ba pare moom guddi la daa wëgg ne ba defee samay la war a ba war a tëdd kër gi mu dëkkoon ak fi sàmm bi fi teen bi nekk teen bi ni wëggee dafa jigee sëñ ma nee ne moo rey tëdd ma gis sàmm bi ci guddi gi muy doog ñëw yëkk ak pëleem di jukki ne di jukki di jukki di jukki may di ma di ko déglu ne muy jukki di jukki ba fajar muy doog a matal li mu doon mu dem këram moom saam bi daal di ndékki jëla ak juróom dem nga xam ne saam bi bu nelawul ci àll bi da nelawul guddi moom itam nee ma ni waaw ki nga xam ne àddina doo nga lay moom nelawul guddi man ñu wut yàlla na est-ce que war na maa wuti yàlla subhanahu wa seen mbokk seen xarit oustaz Mbaye Ndiaye Touba Firdaws min al xaq ila al lu fi jub yàlla la yox lu fi dëng ma teg doomu aadama waaye nii may waxe ak nii may dunde ci laa fas yéenee dund ci laa fas yéenee màgg ci laa fas yéenee faatoo ci laa fas yéenee dekkee ci laa fas yéenee gise si yow xam si amat baba xaar bu suul ku mu ku mu naqari noonu laay doxee nga jégal ma ko lii daal laa fas yéene dox bëgguma nag wóoluwuma yaakaaruma ku du sëñ Tuubaa lépp lu may wax it soxlawuma ca ndimbal bëgguma ko ma ca tàgg ragaloo ko ma ca xas sunu borom doy na ma Seexul Xadim doy na ma yoonu murid gi doy na ma bëggaatuma kenn ku ma tàgg benn sëriñ laa amuy Seexul Xadim yonent bi sallallahu alayhi laa gëm mooy sama yonent benn laa amuy alquraanu karim seen mbokk seen xarit إن أريد إسلام ما وما توفيق إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته